Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati ay kàddu jëmale ko ci dajale koppar ngir jappalé alliance mondiale pour la vaccination du Gavi ñu rafetlu nag taxaway bi nga xamné ne Sénégal amna ko ci produire li nga xamné ne di vaccin fofé ci forum bu Paris bu wéso lolu nak seet mu waxtaan ak naataangoom bi di Emmanuel Macron. dinañ dem fa li nga xam ne moo di camp pénal bu Liberté 6 euh, gannaaw nag la fa xewoon ci àllarba euh, bi ba ñu dafay àpp fuuy ci néegu ñi nga xam ne nag ñoo di détenu yi teg nañ loxo ci ay téléphone portable li nga xam ni moo di chanvre indien ak yeneen ngànnaay yoo xam ni nag ñu nekk ci kaso ko dañ ko yoroon dinañ ciy dellu siwaat ak ki nga xam ne moo di Moussa rubrique économie Ziguinchor diocèse bi nag am ab évêque bu bees muy monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga alliance mondiale pour la vaccination ñu duppee ko euh, Gavi mu xam ne na ko ci forum euh, bu Paris ci loolee sax ñu rafetlu taxawaay bu am solo bi nga xam ne suñu réew am nañ ko rawatina ci wàllu produire li nga xam ni moo di vaccin dañ ci ànd ak uman fii ci Quai lañu doon amalee ndaje mi président Bassirou Diomaye fay bokk ci njiit yi nga xamante ni ñu ngi leen ci doon xaar bu baax li ñu ci jublu nag mooy rek fexe ba ñàkk gi gën a doy ci àdduna bi rawatina Afrique waaye tamit ñu am koppar boo xamante ni dina jëm ci wàll wi ci kàddu yi mu yëkkati nag njiitu réew mi rappelé ni Sénégal moom liggéey bu am solo yàgg nañ ko def ci wàll wi firnde gi mooy institut Pasteur bu ndakaaru nga xam ni jege na téeméeri at muy def liggéey ci wàll wi bokk na ci tam benn programme boo xamante ni euh, mi ngi wéy ba tax sax ay infrastructure yu am solo yu demee ni vaccinopole bu jam ñaajo tax ba Sénégal di wéy ci liggéey boobule mu sukkandiku nag ci loolu wax ne ñii di waa Gavi di kuréel bi xeex ngir rek ñàkk doy ci àdduna bi jar nañu jàppale ba tax muy woo ñëpp rek ñu fexe ba nu ñu amee koppar ci wàllu woowule mu fàttali nag njiitu réew mi ne lu demee ni Covid 19 bi nga xamante ni amoon na fi war na yee àdduna bi rawatina Afrique ndax gis nañ ne vaccin yi indi woon na ay jafe-jafe ba tax kon xeex bi nga xam ni Gavi daf ci jublu ànd ci ak ay partenaire am ñu war leen ci jàppale. muy sant lool nag di gërëm kuréel gi waaye tamit Union africaine ak gouvernement bu France euh, mi ko prié ci ndaje mi nga xam ni ndaje bu am solo la te ngëneel rek la ndax jëm ci wàllu paj di lu mu jox solo moom jiitu réew bu Sénégal bu weesu ndaje boobu njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar fay seq na waxtaan ak naataangoom bu réew réewum France di Emmanuel Macron foofee nga xam ni moo di Élysée ci loolee nag jëmale nañ waxtaan wi ci wàllu lëkkaloo bi dox ci diggante ñaari dëkk yi naka lañ koy gën a dëgërale dañ ciy àndaat ak ki nga xam ne moo di Oumar ci wet gi nga xamante ni moo féeteeg jardin bi njiitu réew bu Sénégal. président Bassirou Diomaye Faye Yeksi, Natangom, président Emmanuel Macron Dalalco. mu nekk nag daje bu njëkk ci ñaari njiitu réew yi moom njiitu réew bu France dalal naataangoom dalal bu mucc ayib ci perron bi wax ko mu yegsi ak jàmm. njiitu réew mi nag ànd ak délégation boo xamante ni bokk na ci membre cabinet waaye tamit ay ministres yu nekk ci gouvernement bi.

xoolaat ko euh, ci loo xamante ni rek méngoo na ak gis-gis bi président Bassirou Diomaye fay am tax ba sénégalais yi fal ko gannaaw nag waxtaan bu am solo boobule njiitu réew bu France gunge ganam wane mbégteem dalal ko fii ci réew bu France. njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar fay seq na itam waxtaan ak njiitu réew Rwanda du Paul euh, Kagame mi nga xam ne dafa teewoon lii di forum bu bari bi ñu jagleel ko wàllub ñàkk gi ñu yëkkati ay kàddu nag jëmale ko ci naka la ñu mën a def ba gën a dëgëral diggante Sénégal ak réewum Rwanda.

tontu ci biñ leen wo woo dañ ci ànd ak ki nga xam ne moo di Moussa Mané ay téléphone portable ay carte SIM ay clé USB ay weñ ak ay xeetu yamba boole ci xaalis lii la agent administration pénitentiaire fekk ci néegu ñi nga xamante ne ñoom la caabi féetee seen ginnaaw fii ci camp pénal mu mel nii nag guleet la caméra di dugg fi ngir mën a filmer li di mel ginnaaw bi nga xamante ne coow amoon na fi ci bésu mercredi bi ñu organiser une fouille généralisée chambre par chambre

mu mel de wone niveau insécurité bi nga xam te ne nemeeku nañ ko insécurité décret le 19 détenu yi ba ñu yeewoo ñu ranger toilette agent yi nar leen appel mu détenu yu chambre 8 bañ agent yi négocier avec nous pour convaincre eux, pour ñu nangu appel ndax malheureusement ñu si ñom lank amna ño xamni dem nañ ba nga xamanteni jël ay toj couvercle fossi ñi pour rek appel il a fallu que suñu agent yi jël fay matelas yooyu ñu taal. ci cadre directeur de la sécurité pénitentiaire mom nee ñi nga xamantene ñoy ñooy agent yi lacrymogène yu ñu utiliser dafa dëppoo ci sart yi nga xamantene ne seen liggéey daf leen ko jox ginaaw bi nga xamantene ne nañu ay trouble yu joggé ci ay détenus ñu négocier ba sonn lank ñun yooyu yoon may nañu ñu utiliser la force uniquement pour les contraindre à respecter la réglementation te loolu lañ def ñu employer la force pour dugal leen ci seen néeg tey nag situation bi dal na bu baax ba ute ci bësu mercredi bi nga xamante ne bëriyoon na coow ñu gis ci ay vidéo yoo xamante ne détenu yi ñoo ko filmé daal di wone ay lakk-lakk yu bëri daal di saccagé li nga xamante ne mooy boutique bi nga xamante ne moom moo nekk foofu ci biir camp waaye tamit ay lacrymogènes yoo xamante ne agent pénitentiaire yi sandi nañ ko ngir mën a rétablir situation bi. amul kenn ku si gaañu du si côté personnel du si côté détenu ba heure bii wax bii tembe tembe bu may wax nii. kenn ñàkku kenn ñàkku ci bakkanam alhamdulilahi rabil alamin parce que encore une fois li may wax mooy maintien de l'ordre en milieu carcéral ci kaso c'est fait de manière graduelle étape par étape premier étape bi une négociation deuxième étape moy emploi de la force si c'est nécessaire de manière proportionnelle si c'est nécessaire en vue de contraindre le détenu à respecter la réglementation une fois loolu échec si l'on utilise utiliser des armes non létales manam yulul dans le cadre du maintien de l'ordre moy ay grenades fusils à pompe mais le lieu, c'est en vue de contraindre le détenu à respecter la réglementation. ci lolu ki nga xamante moy jeuring bu yor walu justice mom ñewon na situation bi nga xamante ne amoon na foofu ci bir camp mu daal rafetlu taxaway bi nga xamante agent yi taxaw nañ ko ngir delloo ci jamm ji ci bir prison bi mom tamit mu daal len di digal ngir ñu mëna taxawal ben enquête bo xamante pour ñu mëna situer responsabilité yi. donc comme que situation crise lañ nek dina am ay restrictions dina am lu ñuy wañi tuuti pas totalement pour nous gën a maintenir sécurité bi maanaam visite yi daañ ko xaw a promenade yi ko maintenant de manière graduelle la situation bi changé ñu redevenir à la normale. ci jamono ji benn jàmm la ñu nemmeeku ci biir camp situation bi dal na bu baax a baax waaye administration pénitentiaire moom nee na pas question mu baissé li nga xamante ne mooy la garde vigilance la ñuy nekk saa su ne. camp pénal yeneen prison yi nga xamante ne ñu ngi fii ci Sénégal la ñu gën a am jafe-jafe mooy population bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko foofu ci biir néeg mu mel nii benn situation boo xamante ne day woo autorités yi nga xamante ne ñoo nekk ci nguuru Sénégal jamono ji junni ak juróom-ñetti téeméeri milliards loolee la nguuru Sénégal dugal ci wàllu subvention wu énergie ci ñetti at yi ñu weesu FMI nag di xam ne ne faaw ñu xoolaat bu baax lu jëm ci wàllu subvention yooye ñu mën ko wàññi ba dugal koppar yooyee ci programme yu gën a mën a amal askan wi njariñ xam ngeen ne réew Sénégal ay bés a ngi nii nag mu yëkkati. ab levée de fonds foofee ci eurobond bi mu dajale lu toll ci euh, ñeenti téeméeri milliards yu toftal euh, juróom fukk li la yëpp nag euh, di wundu lu jëm ci wàllu croissance mën nañ ci rafet njort dañ ci déglu leeral liñ ci indi ci rubrique économie réewum Sénégal di dépenser lu ëpp bu PIB-am jëmale ko ci subvention wu énergie ngir fexe ba maîtriser jógu courant yi gaz butane waaye itam carburant bi ñetti at yi ñu génn nag nguuru Sénégal dugal na ci lu toll ci mille huit cent milliards ci suñu koppar FMI nag di artu di xam ne ni fokk ñu xoolaat fi ñuy dugal subvention yee subvention yee nag dina wàññeeku ci atum 2025 ak njëgu produit pétrolier yu yees yi waaye itam audit bi nga xam ne war nañ ko def euh, ci Senelec nga xam ne buñ ci génnee euh, dinañ euh, tëral li nga xam ni moo di ay structure de prix lu soxal nag perspective économique lu jëm ci déficit budgétaire bu Sénégal toll ci 4,6 pour cent 2024 ñu doon jort nag lii di 3,9 pour cent bu PIB ngir fexe nag ba résorber li nga xam ne moo di déficit budgétaire nguuru Sénégal xam ngeen ni def na ñaari ay bés amal na juróom-ñaareelu émission rebond mu dajale nak lu tollu de 450 milliards de francs CFA ci suñu copar euh, jëlé ko ci marché international de la dette ñu avons nak assainissement financement euh, public ci atum 2025 euh, mu wara am nak njéxital bu am solo lu jëm prévision de croissance nak ñu maintenir ko 7,1% ci 2024 mu war a yegg 10 virgule 1 pour cent ci atum 2025 FMI di xam ne nag lii di inflation bi dina wéy di wàññeeku ba gën a suufee sax li di quatre pour cent mu tombeek gouvernement bu yees yi war a tëral ay ndogal yu bees yu ñu jël ngir wàññi njëgu dund gi ci Zegenchor, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga à mon nak nommé avec bu diocèse bu Pape François ñu connu ko niki et ñaar fan ci juin mu Paul Abel Mamba ci le diocèse bu Ziguinchor lolé nak ñi nga xamné ñoo di chrétiens yi Michel Mendy Joseph bu Ziguinchor ginnaaw bu mu toogee lu ëpp ñaari at am na monseigneur bu monseigneur bi nag mi ngi tudd Jean Baptiste Walter Manga mi ngi remplacé ku fi nekkoon Paul Abel Mambat fidèle Joseph bi ñoom am nañu mbégte bu mag bu ñu déggee annonce bi. ñu dégg nañu ku la ci di xamuñu lan la parce que les fidèles je pense qu'ils n'étaient pas au courant mais ma ma ma wootee laajte ñu ne dañuy am évêque. man daal di solu ma ne damay dem sant yàlla parce que dañuy ñaan bés bu nekk pour yàlla may nu évêque ma ñëw nag fekk naa leen fii fekk fi la béy ak yooyu dugg si jàngu bi taal sama sondeel sant yàlla ndax grâce la ñu am cadeau bu rëy la nu am tey. monseigneur bu bees bi moom nag doctorant la si li nga xam ne moom mooy ethnie waaye tam anthropologie. moo nekkoon vice recteur bu grand séminaire bu Brin te nekkoon tam vicaire si paroisse bon pasteur bu Enampor 2015 ak 2021 moom nag nekkoon na curé paroisse Saint Benoît bu Néma bu Ziguinchor. ba mu ñëwee Néma ñëpp ko soppoon dañ ko soppoon parce que ci lu mu lu mu doon liggéeyee dafa dafa dafa nekkoon dafa amoon ay projets yu bëri si Néma. xalaat defaraat Néma xalaat defaraat école Saint Benoît bi nga xam ne presque doxatul woon mu ñëw ubbi aumônerie bi aumônerie bi mu amélioré ko mu amoon ay projet ay porcheries yu bëri si Néma ba pare dafa amoon sens dafa mënoon déglu nit dafa mën a déglu nit dafa wàcce woon boppam vraiment koo xam ni ku neexoon liggéeyal la liggéeyoon nañu moom ci Néma liggéey bu rafet ba démb sax ñu ngi koy ton di ko ne war nga dellu si waat mën nañu waaw waaw kenn xamugul daal mais fu mu nekk noonu dafay nekk pour noppaleku ndekk dellu si bi moo nekkoon pour ñëw nekk curé bu mag fii bu nekk évêque euh, Ziguinchor

Euh, diocèse bi yëpp voilà foofu dañu def réflexion ci ay défis défis yu yu yoo xam ne c'est les défis actuels de notre église te foog naa ne xam na fan la nar a jaar pour mën a solutionner euh, ay ay défis yu bëri yu ñuy xaar fii si diocèse bi. ñu ngi ñaan rek yàlla jàppale ko ci euh, nouvelle fonction yi ma ne xam naa ni vraiment dina ñëpp dinañ ci jàpp nañ ko jàppale.

préfet bu Saint-Louis jot naa ndortelu baccalauréat technique bi ndax lépp jaar na si yoon si la ñëwé ci lycée André Pétavin bi nga xamni mom moom la région bi am ci centre d'examen si ñetti témé rek ñetti candidat yi bindu won ngir bok ci l'examen bi ñent si ñom dañoo absenté. Euh, dañoo ñëwoon fi ci lycée technique André Pétavin pour euh, xol euh, donc démarrage examen lycée technique pour le bac lu ñu gis mooy est euh, prévu. donc euh, candidats yi ñu ngi ci candidats également ñëw nañu en masse euh, ñeent rek ñoo ci absenté ci ñetti téeméer ak ñett candidat loolu day wane daanaka ñëpp ñëw nañu kaaraange am na fi vraiment lu ñu war a wax daal moo di ne li ñu gis fi daal moo di ne que euh, épreuve bi tàmbali na et que vraiment candidat yi ngi si bonne condition ñu ngi def seen épreuve ci jàmm. sécurité ak surveillance bu doy la ñu nemmeeku ci centre d'examen bi ak ay candidats yu concentré wu ci seen épreuve yi loolu nak di gëna dalal xelu autorité académique yi. Euh, suñ mesures yi ñu jëloon waxoon nañ ko jël pour bac bi jaar ci jàll ci jàmm ak salaam lu mel nak sécurité bi gis nañ ko fi bu baax a baax la police ñu koy remercier ci loolu ak gouverneur préfet ñom ñëpp. Euh, lu jëm ci présence xalé yi aussi gis nañ ni c'est une très bonne présence ñëpp ñew nañu benen bi moy surveillant yi ñu waroon mettre à la disposition pour démarrer ñi ngi fi te consigne yi jox aussi ñu ngi koy respecter autour de ça établissement bi ñi ko jiite comme proviseur ak staffam yëpp ñi ngi fi téw fas japp ci bac bi ci 5 jours yi mu jall ci jamm ak salam donc commencé nañ épreuve yi depuis ci suba ay 7h30 yooyu euh, ci 303 candidats yi ñu am 4 rek ñoo ci absenté kum or euh, jury bi moom quatre séries moo ci nekk euh, série bu ñu tudd steck ak série bu ñu tudd STDI ak série bu ñu tudd T1 ak série bu ñu tudd T2. jii nag li mu candidat yi tegal na juróom-ñetti fukk ak ñeent suñ koy méngaleeg at bii ñu génn. épreuve nag dinañ ko amal si juróomi fan laata ñu jëm ci li nga xam ni mooy délibération yi. ci wàllu tàggat yaram euh, euro 2024 euh, Espagne nag moom euh, daanaka qualifié na ci prochain tour bi La Roja nag moom moo dóor li nga xam ni moo di l'Italie score match bi nag di benn bal ci dara dañ ci ànd ak Fatoumata Savané ñaari équipe yëpp daan ci seen premier match yi ñi nga xam ni nag ñooy ñaari formation yi war a jàkkaarloo ci seen kanamu public yoo xam ne ñëw nañu bu baax ci biir stade bi ngir jàppale leen am nag tike bu leen jàllale ci ñaareelu xaaju compétition bi espagnol yi ñoom ñaareelu ndam bi ñu am tax na ñu daal dee jot ci seen ticket qualificatif ci huitième de finale yi nga xam ni moo ñeel euro 2024 bi. jërëjëf Fatoumata Savané mbokk li moo fi rusandi woon ci ay xibaar ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi te di leen kenn lu jàmm ak programme seen télévision nationale.